daal dara me daal lay jaay ah daal naka naka njaay mi ren ak tabaski bi mu ngi neex tabaski bi ren de rek ah mu ngi neex neexagul de. ah déedéet kay. Eh, neexagul de moom. Ah, mbaa gars yi ñu ngi ñëw ba. ñu ngi ñëw ndànk rek. ndànk amul ren. xaas amul waaw ah, mais ndax bu daaw beeg ren bi bu gën a tane. ah daa mel ni daaw a tane de. wala gars yi ñoo ñëwagul rek. ma la ñoo ñëwagul ko. <laughs> jërëjëf neex na de. ah merci beaucoup. Ah, salaamaaleykum. kii Yoro Yoro ñu ngi lay sa sëñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam tur bi naka waaw euh, nan nga gisee tabaski bi ak euh, euh, situation nu mu demee situation tabaski bi waaw gis ngeen ko yéen ñëpp marché bi teel naa xat bon xaw ma na xaalis am na wala amul. mais sànq dama gis auto gendarmerie doon ramasse mu lan moo xaw. si côté badge yi parce que taximan bu nekk da nga war a am badge ak quittance. yow sa bos am na ko yow. man am naa lépp. am nga lépp. ana basi bi. mooy lii. ah bi mooy sa matricule. waaw bi mooy sama matricule 28. 28 daam ngay mooy lii daam ngay waxal ren tabaski bi ak mu ngi dox yéen prix 200 wala 150 wala nañu ko bàyyi fixé 200. waaw instant si 200 300. waaw ñu man askan bi laay waxal. moto ba amul euh, tableau. amoo bat lii bu ko jël ba amul lii bu ko jël. parce que moto daa war a am loo xam ne moom la koy xàmmee àggaale bu la yàqalee mu sàccal la dara ñu mën a xam. waaw loolu daal leen ñaan. moo de ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu si gis suñu bopp nag. jërëjëf waaw wax seen président bi am na ren commencement bi jaar na yoon wala nu mu demee. waaw président ñoo bokk liggéey bi sax ñoo bokk liggéey. Ah. waaw sànq nii ah. jot ñu ngi brigade boobu la ñoo ñoom fa lañ nekk di réglé nii ñoog président ah. waaw pour ñu fay pour ñu fay waaw. lii la ñuy laaj à tableau. à tableau bi waaw à tableau bi. Euh, ban ban message ngay laaj a taximaan yi nga xam ne ñoom ñoo amagul bas seeg yooyu. daf ni seen i morom. def seen bopp parce que lii. lii suñu lii suñ liggéey la parce mhm. que comme que suñ liggéey la dañ si war a def euh, fulaak mhm. bu ñu keneen yàqal jërëjëf lii daal lay am lu mu cee wax merci beaucoup képp ku bëgg taxi nag uti baat jërëjëf Dakar ah. mais dama yor bi benn mais moto mais gars dañoo teg benn euh, ordre boo xam ne uh-huh. daal man mu xaw ma nu mu demee noonu ko parce que ah, da nga ah, dama laaj ñu ne ma léegi batterie bi su ma ko amul du ma dawal moto ah kon jërëjëf baa ngi dox naa yaa ngi gis merci beaucoup. nit yi rek nga wax. tar. kan moo ko taral. xanaa yëf yi doxul. ah tourné ñu ne ñu Covid bi. ba ko. ba yaa amul dara amul gis nga maag sama masque kay. moom mooy ñu amul masque. ah mu ngi dox bu gis sa bi neexagul nag. neexul nit ñi ñëw ñëwagul wala xaas moom. nit ñi ñëwagul xaas amul. mais mais chaque ñaata ngay. instant bi daal démb lañ commencé ak tey moom waaye dox bu mu def. ah yaay wooyu looy jaay nii. kay man. Ah, lii mooy ban ak per yi nii. gars yi njar la wala. wala ñu def ci loxo yi. loxo lañ koy def. loxo yi naka njaay na nga gisee tabaski bi ren ak njaay mi. Ah. naka njaay mi. sant affaire baa ngi dox. nice. ensemble ñaata. ensemble 3000 am na 2000 am na 1000 am na. am na 1000 barke sëñ Bamba. tabaski bi bu daaw bi ak ren bi nu mu mel. waaw ñu ngi sant ah ñu ngi. ci loxoy yàlla daal dara xewagul. ñu dox bu baax a baax a baax. waaw mais ndànk-ndànk rek. yaa ngi gis sa bopp. ndànk-ndànk. yow waaw foo jugee. Dakar lañ jugee. Dakar ñu jugee. Uh-huh. nga la jàppale waa Koungheul bu baax. ñu ngi lay sant bu baax di leen. dafa sakk ànd ah. si ñoom rek. jërëjëf jërëjëf. 3500 3000. 2500 ñoom seen foofu la ah bu mais kaas yi nag day jaayale. waaw kaas yi Ah, koy jaayee rek. Ah, ak ndox mi. <clears throat> waaw damay jaay ndox. ak café li café la wala ataaya. de du café dama see def bagage. mais yaa ngi ngi gis sama bopp ndànk rek. ah gis bopp ndànk. lii lu am importance la si dëkk bi wax dëgg yàlla ndax day feeñal liggéey nit ñi ak seen xarale quoi. jërëjëf grand. waaw kontaan nañu sant bu baax. Mbaye Ndiaye. da nga ñëw pour jënd wala da nga ñëw pour jaay la am de. dama ñëw pour jënd ak wax see si jënd si ak jaay. ah naka tabaski bi ren nag. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah maa ngi sant. yàlla yàlla. xar bu mag a mag. waaw am naa xar alhamdulilah. Ah. alhamdulilah. mu ngi neex rek. waaw mi ngi neex lan moo may xamal neex na. ah xanaa ma ñamal rek. moo ma ñamalee ma jël. ah bul wax dara. Ah. xaaral ñamal la. Pardon, maa ngi lay déglu. oui ah madame Ndiaye. ça va nu mu bi daf may ñamal si bataay bi. mbaa du am kaane. Ah, bu la neex. non kaane baax ah. na. dafa ma ketchup. 200. 200. 200. Ya. ah kon affaire yi seer dafa yokk. waaw. tournée bi ñaata ngay am ci kan. bés bi ñaata ngay 2000. chaque jour 2000. de. neex na lu ma am rek. déedéet. <laughs> yéen bokkul da ngeen jënd ñoo jaar. dañuy jënd di jaayaat di nas. Eh, ah moom mënoo ko liggéey. waaw per yi moom da koy jënd yaa nas. per yi per yi ngay jënd nas. ci des moom da ngay jënd rek teg ci taabal. ah kon affaire yaa ngi dox de. ah ñu ngi sant bu daaw bi bu daaw. ah ñu ngi sant yàlla daal. sant yàlla yàlla na yokk. yaay booy na nga def. yaay mel ni bu baax kontaan rek. waaw sant yàlla kontaan. fekkee rek am solo. dafa mel ni bu baax. yaa ngi gis sa bopp. waaw. bu ah? ah. rek. Ah, sant rek ñaan yokkute rek may ñu wér ak wér la yàlla defal leen jàmm may leen wér yéen tam ak wér la ñu fekkee lépp defal merci